yéenekaay bi taxe yi ñu dinde woon 2011 ci frais hospitalisation ci clinique yi dugalaat nañu ko ci loi des finances bu 2023 bi ci gàttal li nit daan fay bu ci établissement privé de santé maanaam clinique yi TVA ba da cay bokk léegi ku daan fay bés bu nekk fukki junni ci clinique l'observateur nee nañu fukki junni ak benn ngay fay léegi clinique yu bari ci réew mi l'Obs mi ngi ñuy wax ne bu ñu moytul danañ leen defal redressement fiscal te bu boobaa ko a gën a yëg ñooy aji ji ni mu mel ci réew mi doy na waar la moo ñu ko wax ba di ñu wax ne ca centre Marc Sangaré ba ñuy faja jabet ci ñu fa dégg dalu am xel ndax am na kenn ci kilifa yu ca centre ba ku leen wax ne bés bu nekk dana am benn wala ñaari nit yuñ dagg seen baaraamu tànk ndax jabet mbëkk mi di immigration clandestine journal tribune moom la xëy mi ngi laaj ci xëtamu njëkk nees mën a def ba dakkal ko jàpp na leen du yomb ne legetu neen naxuti bay mënee suuta tey jeunes réew mi ci réew mi te kilifa yi mi joxuñu leen lu ñu mën a jàpp ba mën a toog ci réew mi entrepreneur bu ñu ràññee ci réew mi di Maguette Gueye borom car rapide prestige direct news dikk na ak ñun ci waral immigration clandestine gi ak nees ko fi mën a jëlee Maguette Gueye nee na mbëkk mi ab réalité la bu dangereux ñi koy def di mbëkk gaali loo ciy wutali bitim réew ba seen bakkan mën a des ci géej gi ñàkk lu ñu def ci réew mi moo leen ci dugal donte nag gouvernement bi mi ngi ciy góorgóorlu terewul semence bi mi ngi fi ba tey tey la gën a takkarnaase ne bari na ci réew mi ay jeunes yore seen i diplôme ak ñu yore seen talent te jariñu leen dara jeunes yi wut seen i moto di def métier livraison ngir bañ a toog mu ne dañ leen a war a jàppale ndax am réew su bëggee dox dafay jàppale ay ndawam mag jeexal dem ba dem retraite ñu leen di delloosi di leen dénk ay privatiser ci état bi mooy li jaaxal Walf Quotidien li mu gis mooy fii ci Sénégal dañu jël lu màggat bëgg cee defar lu bees lise ko mel ni ko naan ko loolu yeggul ci ministère des sports ndax ministre bu bees ba fa nekk di Lat Diop ak paa yu bari yu newoon ci ministère ba te dem retraite bu yàgg ñu ci mel ne Léopold Senghor Cheikh Sarr ak Mamadou Fall newoon ci ministère des sports yore woon fa ay poste stratégique te bu yàgg Lat Diop dàq ña nga woon ca Côte d'Ivoire doon def mission de prospection ngir kan bi FITS di front pour l'inclusivité et la transparence des élections kuréel la gu ñu taxawal ci réew mi mu dajale ay politikat yu samp seen dënd doon candidat ci élection présidentielle 2024 le témoigné laaj kuréel googee muy FITS ndax dana fi def lu mel li fi kuréel gi ñu fi taxawaloon l'an ci jamonoy Abdoulaye Wade di FRTE front pour la régularité et la transparence des yeewi askan wi du jur jàmm ci F24 ñaari kuréel yépp la nar a suul point actu di laaj ndax fit dafa ñëw taxaw ngir bëgg a fëgg ci taabal ji ba lépp jaar ci yoon am ndax dafay ñëw rek ngir gën a yokk lisub coalition yu bari yi ci réew mi point actu mi ngi ñuy xamalit ne ñi sos fit boole wuñu ci ñoom Khalifa Sall ak ñoom Abdoulaye Wade maanaam waa taxawu Sénégal ak waa Parti démocratique Sénégal commandement territorial bu Sénégal suur ne nañu la cay xeeñ neexul ndax bari na ay ancien préfet ki ancien sous préfet yu ñu jële ci bi te ñu bari ci ñoom ay dëkkandooy Aly Ngouille Ndiaye